Euh, jërë ngeen jëf mbokk internetu Dakar instant sa su nekk mbégte contentement lañu am di and ak à partir des 15 h du lundi au vendredi euh, ci li nga gën ci li nga xamné mo gëna fess ci bop yéenekaay yi ñu naan ala ND la journaux donc ñu dem rek seeti yéenekaay ak li nga xamné mom lañu xeyé tay xëyee tey euh, seeti bi lee di alerte quotidien alerte quotidien nak ñëw na ci ki nga xamné ne di garde à vue à la gendarmerie Ndiaga Ndour risque gros donc mu nekk situation bo xamné ne journaux yu bari bari dal dinañ ci ñëw mom nak mu nekkon fële ci TFM lu tax ñu dal di ko tek loxo bokku na ci problème signal bi nga xamné dañu japp né sàccoon nako ak wa 2 TV ba tax na ñu teg ko euh, section bu recherche bu Colobane ba tax na bi di ñu xamal ne ki di Ndiaga Ndour risque xam ne moo gros mais lépp lu ci am rek information la boo xam ne dinañ koy euh, waxtaane euh, ba tax na mu les autorités montées en flèche des cas de Covid-19, apparition du variant Delta, manque de vaccins. Donc, yëpp nekk loo xam ne euh, lii di direct news dal di ci ñëw ak ñun ba tax na titre. ngi euh, dal di le Sénégal assis sur une bombe sanitaire donc nous samay kàddu waaye yéen kaay bile di direct news moo ko dal di xamale ba tax na bu ñu xamal rek le président de la République mu ngi woo li nga xam ne moo di askan bi wala mu ngi wax mu ngi wax ne que dina déployer des moyens nécessaires euh, pour ci la campagne de vaccination bi nga xam ne jotoon nañ ko commencé et tout donc loolu aussi nekk na information boo xam ne ko

xam également Modi di revenir na ci ki nga xamné Modi professeur Seydi mu nek l'un des pros du Diouf Sarr l'accablant donc ba taxna mu ngi laccé né euh, pourquoi tay mu am ben peut-être euh, désaccord entre ki nga xamné Modi euh, professeur Seydi ak ki nga xamné ni Modi Abdoulaye Diouf Sarr ba taxna mu ngi ñëwaat ci li nga xamné moy walum professionnalisme ak preuve de Ebola avec li nga xamné amon na fi ci walum fièvre yi ni mel mu nek fièvre Ebola mu nek situation bo xamné dal daal nit ku nek ak fo mëna a que ça soit ci état bi que ça soit également ñi nga xamné c'est des professeurs seen xel dafa match ci walum santé ak ni mel donc ni ku nekk mu ngi wax euh, ci wàllum vaccin bi ban taxaway lañ ci wara mëna am ak nañ ca na lañ ci wara mëna taxawé euh, ba lepp lu ci mëna am rek inshallah dinañ ci gëna revenir ci Dakar instant ñu dem seeti yene kay bi lay di exclusif plainte contre euh, ma jambal averti donc mu nek situation bo xamné situation également bo xamné journaux yu bari bari dal dinañ ñëw peut-être on se rappelle de juste Telico bi nga ma jambal jañ Diagne danoon ko tuumaal que ne ci li nga xamné modi procès abré bi donc ba yóbboon nañ ko tribunal ki lay di jambal jañ ñu daanoon ko ci trois mois yo xamné daf ko rëdd ci prison waye dafa defoon li nga xam modi appel ba taxna rek ma jàmbal mi ngi ñëw euh, mu né profil bas car les magistrats sont très en colère donc nous samay kàddu waaye kile di ma jàmbal jañ moko daldi yëkëti lepp lu ci mëna am rek dinañ ko daldi di cette information parce que aussi euh, c'est très important pour que jox ko suñu mbokk internet yi nga xamné dañu bàyyi xel dañu resté waat rek ak yene kay bi lé di exclusive exclusive nak ñëw na ci nga démonstration en force Bougane Gueye Dany sur les rails de 2024 donc du samay cadeau mom aussi ça fait un bout de temps ñu gis ko mu nekk ci ben opération bu mu types tibb de fépp fu président de la république dem mom dina fa jaar euh, pour def li nga xamné modi ni moo di euh, tibbu tànk à ngi won Thiès ba tax na xamal né tibou tank a reçu une belle réussite à Thiès donc nous samay cadeau à yéen kaay bi Daldi euh, moo titré lu ci mëna am rek bataille bi commencé na entre ñi nga xamné ñoo ci opposition wala ñoo fassé ci li nga xamné modi pouvoir Bougane gay également qui est très dynamique ci li nga xamné modi walum présence ci descente ci terrain bi et tout mais lepp lu ci mëna am aussi dinañ bay xel li nga xamné modi information bob pour xol fan lay daldi est-ce que fay continuer li nga xamné modi ay tournéem ak fu mbass mi toll ak éventuel troisième vague bi nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee ci non lañu démé demee seete yéen kaay di Le Soleil Le Soleil nak mom ñëw na euh, ci li nga xamné modi place de Cyprès ak euh, place bu melni ni euh, ba taxna mu né les noyades chassent les baignades baigneurs donc du samay cadeau wax yéen kaay bile moo ko titre rappelez-vous que les semaines passées peut-être amone un nombre très conséquent yo xamné ay ndaw yu ñak seeni i le la ci place Malika ak ni mel donc vacances yi commencé peut-être la plupart des jeunes dañu dem ci plage et tout ba taxna na yéen kaay di Le Soleil daldi ci ñëw ak ñun ci non la jallé jàllee dem seetiwaat yeneen yéen kaay mu quotidien Les quotidiens, moom ñëwaat na ci li nga xamné modi euh, moo euh, arrêté euh, pour vol de fréquence de la 2STV pas d'immunité pas d'impunité pour les brigands donc du samay cadeau waaye yene kay bi lé moko dal di titre ngeen gis kooku nonu di Ndiaga Ndour ñu dal di ko tek loxo fele ci section de recherche bu Colobane dañuy restawaat rek ak yene kay bi nga xamné ne jox na kàddu ki di Cheikh Omar Anne ministre de l'enseignement supérieur moom nag ñëwaat na ci sanction yi nga xamné def nañ ko étudiants yi nga xamné dañu japoné dañu saccager li nga xamné modi restaurant yu nek à l'université Cheikh Anta Diop jot Dakar ak ñi nga xam ne jàpp nañ la ñu message ki nga xamné modi euh moy euh, le doyen des facultés diko daldi artu wala diko daldi menacer ba tax na rek mom daldi na ñëwaat ci li nga xamné modi euh, sanction yi nga xamné jël nañ ko ba tax na mu né la la commission euh, disciplinaire donc ki le di Cheikh Omar An aussi te peut être pourtant ñu koy gis mu daldi di def ay présence ak yi mel mais lepp lu ci mëna am rek jàppal ne moom dal dina rafetlu daan bi nga xamné tek nañ ko étudiant yi mu nekk daan bo xamné amna Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamné ne nañ ko à vie mëna mënati jàng ku melni ni l'activiste ak Khadija déjà ñoom ñu dàq leen li nga xam ne moo ans ak cinq ans ba tax nañu dem seeti yéene kaay bi lee di mi quotidien réew mi quotidien nag ñun ñëw naak ci li xam ne mu nga xew fële ca Haïti Haïti nag euh, ku dégg mu comment le couple présidentiel a été assassiné donc on euh, gis ko noonu ci photo mu euh, président Haïti bi ñu dal di fat, dal diko boom mu nekk lo xam ne lu doy doy war et c'est très fréquent ci li nga xam modi pays africain yi ba lepp lu ci man am rek je pense que war nañ mu ne lanterne wu def enquête bu équitable pour que ñu xam éventuellement kan mo fi jël bakkanu président Haïti bi ci non rek la jallaté ci yene kay bi lé di info info nak, ñu na ñun ci li nga xam modi walum code électoral ci article L31 ak article L32 bi bi nga xam ne nee na Macky Karim et Khalifa mu nekk les deux cas mu di Karim ak Khalifa donc ci wàllum dialogue ne dal di ko extradé fële nga xam ne moo di Dubaï Khalifa Sall actuellement euh, mu ngi Sénégal peut-être ba récemment génnoon na président de la République dal di ko jaale ji ba tax na ngi laajte ndax est-ce que problème bu ne ñu bi nga xam ne nee nañ ki di le président de la République moo jor yor li nga xam modi kaddu bu mujjibi euh, pour xam dal leen ni amnistie waaw ndet aussi dañ ko dal top parce que tay euh, cette semaine là gis nañ journaux yu bare bari dal di ci ñëw ba tax na rek lepp lu ci mëna am dinañu ko dal di toppandi pour vérifier cette information ba tax nañu dem séti yéeni kaay bi lee di critique yéeni kaay eh, critique yéeni kaay nag moom ñëw na ci li nga xamné ne moo éventuel euh, troisième vague bi nga xamné ne ñu ngi koy waxtané ba taxna mu né covid 19 356 cas positifs 5 euh, décès vacants graves donc mu nekk loo xamné ne lu doy waar la euh, ba taxna na yéeni ba ñu xamal le variant delta précipite la troisième vague du samay cadeau waa yéeni kaay bi lee di critique yéeni kaay dal di titré donc mu nekk chiffre bo xamné ne chiffre bu doy doy waar la bu ñu démé bay amaat ay 300 et quelques cas yo xamné ne ak 200 et quelques peut-être cas communautaires dafay nekk loo xam ne nañu gën a vigilance bi nañu gëna a xel ci li nga xamné modi coronavirus bi parce que mu ngi continuer di exister avec le nouveau variant bi nga xamné modi variant euh, delta yi ba tax na yéen kaay baa ngi ñëwaat mu né Dakar adopte le virus avec 205 cas communautaires l'Arabie saoudite appuie le Sénégal en matériel de réanimation donc mu nekk loo xamné aussi ñi di Arabie saoudite dal dinañ ko jappalé état bu Sénégal ci wàllum euh, appui ak yi mel ci walum matériel parce que récemment déggoon nañ ñu ne feulé ci hôpital Fann li nga xamné modi walum oxygène ak yi mel amul foofu ba tax na di euh, li di réew wu Arabie Saoudite dal di ñëw appui ba tax na tey bu ñu ne deux cent cinq cas communautaire ak le nouveau variant delta dafay nekk situation boo xam ne war nañu gën a yokk xam ne moo di euh, matukaay ci a am ci noonu la opération tibb tànk de gëm bopp nga xam ne Bougane Gueye Dany moo ko dal di jiite ba tax na nee ne Bougane Gueye efface Macky Sall à Thiès du samay kàddu waaye yéene kaay bi di la tribune moo ko dal di euh, titre ba tax na rek nee Macky Sall va transformer les chefs de village en grands électeurs pour Benno du samay kàddu waaye kii di jiitu euh, tibb gom sa bop di bugan gay dani moko daldi dal arrêté donc mom aussi très fréquent ci li nga xamné modi walum terrain politique euh, très précaissant également ci li nga xamné modi presse bi ak par rapport li nga xamné modi euh, déclaration yi nga xamné mu ngi koy def ba tax na rek dañu seetawaat ak yene kay bi du tribune mom ñëw na ci li nga xamné modi jotna def jot dem la chronique mu yoroon ko atté feulé ci tribunal elle avait brûlé vif son mari mu nek lo xamné pourquoi le procès d'Aïda Mbaké est renvoyé on donc que laaj boo xam ne il est di la tribune dal dina ko samp mais lepp lu ci mëna am rek dinañ ko dal di topandi feulé pour xool éventuellement nga gis eh, la tribune yéen kay ñëw ci mobilisation bi nga xamné ne amoon na fële na la ci Thiès ki la di Bougane Gueye dani di njitu gëm sa bop nekkoon fa ci tournée Tëb tank ci non lañu sété seetee kay bi la di source a source a nak ñëw na ci tombé en tranche lors d'un chant à donc un élève se plaint euh, un coup un couteau et meurt donc mu nekk situation boo xam ne aussi gis ni dañ koy gis lu bëree bëri tey euh, ci école yi ci bërëb yu nekk donc taux de violence bi daal am na fu mu yegg foo xam ne euh, ñii di autorité war nañ ci indi saafara pour que li ni mel euh, peut-être dootuñu ko gisati mu nekk loo xam ne lu doy doy wàll encore une fois de plus ba tax na rek yéeni kaay bi ñëwaat na ci wàllum code électoral mu ne c'est la mort de Rimka et Xaf donc samay kàddu waaye ñaaru ñaaru la mu ne Karim Wade ak Khalifa Sall yéeni yu bëree bëri dal di ci dal di dal di ci ñëw ngeen gis ko noonu photo Khalifa Sall ak photo ki nga xam ne moo di Karim Wade moom aussi ñu extradé ko fële na le nga xam ne moo di ci réewu euh, ci réewu Dubaï. donc là aussi dinañ ko daal top rek pour xool éventuellement euh, fan lay daldi di euh, mujj ci non lañu démé c'était yene kay kaay di l'observateur l'observateur nak ñewno ci fi nga xamné modi moo di Kër 274 milliards en faux billets saisis donc nek lo xamné ne bu am solo bo xamné la gendarmerie ñu koy amal ak le nouveau colonel bi nga xamné au haut commandement di Moussa Fall depuis ñu ñu fal ko à la tête du haut commandement gis nañ ko mu ngi amal liggéey bu am am solo ba taxna yene kay ba ñu xamal né l'offre de gendarme acceptée par les les donc mu nek lo xamné ci walum faux billets bi ñu eh, bi ñu ko euh daldi xeyma mu toll ci 274 milliards en faux billets donc lo xamné euh da fay inquiéter eh, les sénégalais ñi nga xamné peut-être dañuy jaay ak jënd ci li nga xamné modi moo bu lewul bi ak des billets blancs ba taxna rek war nañ ci gëna mëna jël li nga xamné modi ay matukay euh, pour xaw éventuellement nak lañ leen di euh, daane ba taxna mu ñu xamal né 419 millions d'euros et 32 euh, millions de francs CFA donc mu nek une somme bo xamné somme bu alourdi la ba taxna rek war nañ ci mëna indi wat li nga xamné modi léral pour Actuellement ban taxaway lañ ci euh, daldi am euh, ci non lañu sété yene kay bi bile di euh, populaire la populaire nak ñew nak jox na kàddu ci ki nga xamné modi capitaine Touré l'ex capitaine je dirais mom radié de la gendarmerie l'ex capitaine Touré je pense donc du samay cadeau mom moko daldi yëkëti mom yëkkati wax né amna na ak contentement bu baaxa baax d'aldi. servir li nga xamné modi gendarmerie ak servir li nga xamné modi moo di dëkkam di Sénégal ba taxna rek néna mom seul seule image bi nga xamné dina ko am seule image quelque que soit sa personnalité donc mu nek lo xamné seul recul bi yoo xamné dina ko am moy Eh, li nga xam ne jot na ko servir li nga xam ne moo di gendarmerie ak waat bi nga xam ne waatoon na ko mu ne mu jëm na def lépp li nga xam ne nii dafay méngoo ak li nga xam ne moo di yoonu gendarmerie boo ci nekkee ba tax na rek moom nee na tey dina concentré eh, li nga xam ne moo di dundam ci njabootam ak ñi nga xam ne wër nañ ko donc nekk kàddu yoo xam ne dal dina ko yëkkati moom di capitaine Touré ñu raje ko fële nga xam ne moo di eh, ci ci chefu gendarme yi ba tax na tey mu dal di jën cadeau pour dal di wax li nga xam ne moo di ëllëgam ci taxawaayam et tout ba tax na rek dañuy resté waat ci li nga xam ne moo di Cheikh Omar Anne nekk ministre de l' enseignement supérieur moom nag ñëwaat na ci euh, nga xam ne awoon na fële ca université Cheikh Anta Diop de Dakar mu ngi rafetlu daan ne teg nañ ko étudiants yi donc mu nekk loo xam ne moom daal dina ci ñëwaat mu nekk le ministre de l' enseignement euh, supérieur ci noonu li nga xam ne moo di témoin quotidien témoin quotidien nag ñëw nag ñun ci li nga xam ne Euh, modi Casamance avec le MFDC interpelle les ONG donc nous samay cadeau waaye yéen kaay bi lee di témoin quotidien moo ko euh, titré ba tax mu xamal le mouvement indépendantiste veut savoir où est mettre les financements destinés au processus de la paix en Casamance donc mu nekk loo ça fait bout de temps euh, peut-être nous ñu ngi koy laajte mais ñeneen ak ñeneen également ñu ngi laajte li nga xam ne ay financement yoo xam ne dañ leen ko waroon a jagleel ba lépp ci mën am rek donc gis nañ ne dalandi am ci Casamance certainement dañ gis de temps en temps mu am ay attaques ak yi mel mais quand même on peut dire que peut-être fu ñu toll ni xaw na am dalandi ba lépp lu ci mën a am rek ñoom ñu samp laaj xam ne fan la gaa yi toll ci walum euh, financement ak processus de paix bi nga xam ñu ko jëmale woon fële euh, ca Casamance ci non lañu démé séti seeti Walf Quotidien Walf Quotidien nag mom euh, ñëwaat nak ñun ci li nga xam modi nouveau code électoral ak li nga xam modi moo Khalifa ak Karim Wade reste hors jeu donc du samay kaddu waa yéene kaay bile moo ko dal di titré ci biir dialogue bobu aussi amna lu am solo li nga xam tankon nañ ko ci mu bokkoon ci walum parrainage bi ba tax na mu né le parrainage maintenu pour la présidentielle déggoon nañ CEDEAO dal daldi génné ben ben ben ben audit wala ben enquête Sénégal di xamalé que Sénégal nañu arrêté li nga xamné ne walum parrainage parce que dafay gàllankoor ñi nga xamné dañu bokku ci opposition yi ba taxna tay Sénégal dalu diko jëfé di ñu xamal né dina ko daldi appliquer ci walum élection présidentielle yi di ñëw lool aussi information la bo xamné dinañu continuer diko daldi euh, suivre pour xool éventuellement euh, fan lay daldi di euh, ñu dem séti yene kay bi la di L'As Quotidien L'As Quotidien nak joxna cadeau ki la di docteur Ahmed Khalifa Niass mom nak ñëwaat na ci li nga xamné ne borom LGBT borom ñaari tur ba taxna mu ñu xamal il y a plus d'homosexuels c'est les journalistes

les statico sur les désaccords donc nous samay cadeau waaye yéen kaay bi di las quotidien moo ko daldi xamal ba taxna rek dinañu daldi suivre information pour xol éventuellement euh, fan lay daldi Mudi ñu seeti yene kay bi lee sud quotidien sud quotidien ñu ñëwaat na ci ki nga xam modi moo euh, Khalifa Sall ak ki nga xam modi moo Karim Wade ci ses droits civiques yi nga xam ne jotoon nañ ko et tout ba taxna na ngi xamal ne Macky Sall le dernier arbitre donc euh, ki lee di le président de la république moom moo am kàddu gu mujj pour xamal éventuellement est-ce que daf leen di amnistier wala dafay continuer di leen di suivre ba légui aussi aussi nek na lo xamne li di yene kay bi le di Sud Quotidien euh, daal dina ci ñew ak euh, ñun ñu dem continuer dem seetuwaat yeneen yéene kaay yi nga xamne ne dañuy yëngatu euh, ci ci wala ñu dem seetuwaat dootu yene kay yi nga xamne ni modi modi les échos les échos nak mom ñew na ci li nga xamne modi contrefaçon de signes monétaires à Keur donc mu nek situation bo xamne jot nañ ko dundu dembu mu tollu ci 419 millions en billets de 100 euros soit 274 milliards de francs CFA ceci donc mu nek situation bo xamne ñi di les hommes de tenue wala la gendarmerie fële ci Kër Massar jot nañ ko amal nek opération bo xam japp jàpp nañ ci lu tolloog quatre individus yo xam ño japp jàpp nañ ne ñoom ñoo nekk ñoo sabab li ni mel wala ño nek les cerveaux ba taxna actuellement fi may wax yow ñu ngi leen di déglu li ci gën a doy waan nag mooy am euh, des biens noirs et des du mercure saisi donc un véhicule immobilisé donc mu nekk situation bo xam ne yéen ngi koy gis c'est pas la première fois muy am Sénégal euh, de temps en temps dañ koy gis muy dal di am filé mais lepp lu ci mëna am rek war nañ gëna yok karangé gi euh, pour que éventuellement Sénégalais yi mëna nek ci jamm ñi nga xam également dañu nek ci jaay ak jënd ñu mën leen protéger parce que xaalis bi tey bu duggee ci marché bi mën am que dina am leneen loo xam ne kenn bëggul ko ba tax rek ñu jeexalee ko ak yéen kaay xam ne moo di le quotidien le nag moom ñëw na ci covid 19 ak forte explosion des cas mu ne la troisième vague déferle donc du samay euh, cas de contamination hier donc mu nekk situation boo xam ne lu doy walla peut-être on peut dire record la record bu am doole ci wàllum contamination avec le nouveau l'Organisation mondiale de la santé appelle les pays à accepter tous les vaccins homologués donc sommes les cadres de organisation mondiale moo ko daal di xamale gisoon nañ eh, li nga xam ne ci coow ci vaccin Nous ñu continuer ngeen ak yéenekaay yi nga xam ne dañuy yëngatoog ñun ci wàllum sport dem seeti yéenekaay bi Tribune Sport Tribune Sport nag ñëw naa ñun ci li nga xam eh, présidence à la Fédération sénégalaise de football Maître Augustin Senghor candidat pour un mandat inutile donc nous sommes les cadres de bi lee moo ko daal eh, titré aussi nekkoon candidat fële Kaf. CAF donc actuellement mu nekk ki nga xam ne vice président dina briquer li nga xamné modi 4e mandat peut-être ñu japp ne lolu euh, nekkul ci droit dafa def li nga xamné modi wax waxet mais lepp lu ci mëna am rek information la bo xamné ne dinañu ko continuer di ko pour xol éventuellement euh, fan lay daldi muju mais je pense que tay wax waxeet aussi c'est quelque chose bo xamné dañ koy giss si suñu ay autorités dañ koy giss si nga xamné ne dañu jàpp ne c'est des euh, cancres wala ñu ñi nga xamné ñoo jité Sénégal donc mu nekk lo xamné aussi war nañ ko gëna mëna baye xel ba tax na rek ñu dem seeti yéene kaay bile li nga xamné modi sport sport nak ñu naa ñun ci l'Angleterre rejoint l'Italie en finale donc mu nekk ci wàllum Eurobi 2021 donc mu nek final bo xamné euh, ñu ngi koy xaar pour éventuellement ñëw joxna cadeau ki nga xamné modi moo di Stade Lat Dior Gana Gueye aussi tàkk les autorités donc du samay cadeau waaye kay kaay bile moo ko euh, daal euh, titré ñu dem seeti yéen kaay bile di sunu lamb suñu lamb nak mom ñëw na ci li nga xamné des boxeurs recrutés en France appel à la bagarre Boyan peut-il inquiéter Tafatine? donc du samay cadeau way li lé di yene kay bi moko daldi laaj peut-être lamb ju gis né ubbi ak affiche yi nga xamné daldi nañ ko teug ba tax na mu ne tafatine le seigneur de l'arène Boyan Sylvie euh, pour la bagarre il n'aura dû répondant donc samay clé Boy 2 de euh, il se peut se il peut se battre avec tous les lutteurs donc nous sommes kàddu waaye kile di Djibril Kandji moo ko dal di euh, xamale yéen kay ba ñu xamal à l'INSEPS de Paris depuis le 10 mai Balla Gaye 2 débarque à Dakar demain donc mom aussi mu nekk ci préparation ak avance yi nga xamné jox daldi di ko jox euh, peut-être euh, bu ñëwee dinañu xol est-ce que physique bi mu ngi fi wala nekkul fi mais lepp lu ci mëna am rek jàppal né léeg di lamb ji mom daldi dina commencé bokki li mo gënon fës ci li nga xamné modi à la une des journaux ñu naan ko li ci bop yéen kay yi di leen di jox dig dajé à partir de 16 heures ci émission Thiowli ak samay chroniqueur ñi waxtané ci li nga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 506 85 74 78 123.